ban euh, Silane bii nii nii fii nii. waaw maa ngi uh-huh. maa ngi leen a fekk. yaa yoon bi nii rek. waaw léegi ah. hectare bi yëpp. hectare bi yëpp dañ ko mën a dox. 14000 ah, mètres carrés. ñun sax dañu fay yàggu ndax fii day jub. waaw pour man da ngeen may topp damaa bëggul leer rek de. gis nga courant bu bëggee courant day difficile bay bëgg a dee day facile maa ko day difficile day facile bay bëgg a dee xool nañ ko mën na pompe mën na lii. lu xew TV seen YouTube sénégalaise. da nga bëgg publicité jokkool ak ñun lu xew TV xibaar yi wér te wóor. salaamaaleykum sama sëriñ maa ngi leen di ziar yéen waa sàmm sa diine da laa leen tuddee sax man sàmm sa diine waaw parce que li ngeen di def nii yëpp bëgg a suuxat diine la mu jëm sa kaw la. maa ngi leen bu baax ci loo leen nekk ndax ma bàyyi yéen si jàmm bu baax ndeke foofu bàyyi yéen ngi am tawféex man li ma seetlu mooy ci affaire seen petit gàll bi ngeen doon wax waaye man dama seetlu ni ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo jiite seen petit gàll bi ak ñi nga xamante ni dañ kaa rafetlu si ñoom en général damay gis ñoom chaque jour dañuy xool faayi daaray alxuraan yi comme daara alxuraan yi benn benn faay bu nu am rek ñoom dañuy toog ci média bi di ko willi paane ah di wax lii bu ko defee nit ñu bëri maanaam daal di manqué confiance ci daara alxuraan yi ak waajur yu bari daal manqué confiance ci daara alxuraan yi tey nit bu bëggoon a yóbbu doomam daara sax day metti pour mu yóbbu ko côté boobu tamit su ma sañoon da ngeen ciy ko waa ngeen ciy waxaale bu baax a baax nit ñi di leen déglu quoi parce que loolu tamit am na importance pour maanaam niñ ciy naxee nit ñi yéen. maanaam ngeen yàq nax bi daal pour yee ci nit ñi tamit ñu ubbi seen bopp bu baax a baax a baax daal man daal loolu laa amoon ci lu ma si doon waxta te dama kasee seetlu lu baree bare bari nag si waa kii boobu noonu waa média boobu noonu en général ñoom bu daara defee benn faay rek daaray alxuraan rek wala lu mel ni école boo xam ne arabe la rek lu yëngu si alxuraan rek ñoom bu ñu defee benn faay dañuy gaaw seen presse beeg seen yëpp. ba si nit ñoo ñëpp dañuy taxaw di ci wax affaire yooyu noonu te ñoom li ñuy def moo gën a yées fukki junni yoon li daara yi di def li ñuy def moo gën a yées fukki junni yoon parce que ñoom li ñuy def tey jii nii yàlla gërëmu leen si du yonent du kenn tamit côté boobu damay bëgg bu ngeen ciy wax tamit ngeen ciy waxaale daal day am solo trop day am solo trop trop trop ngeen ciy waxaale bu ko defee ngeen ciy yeewaale parents yi nga xamante ni ñoom ñoo bëgg yóbbu seen doom daara. maa ngi jégalu bu baax di leen nuyu di leen sant yéen ñëpp di leen ziyaar ak di leen màggal bu bu wér